بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom ma ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko noo ngi àndandoo yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala tolloon ci suura almaida xam ngeen ne samedi bi passé ñoo ngi doon jël aaya 106 107 108 waaye yàlla ci dogalam moom moo àtte woon ne ñetti aaya yooyu benn bi lañ jotoon a jël ndax njàngale yuñ doon génni ak temps bu xat moo taxoon ñu jël benn bismillahi tabaraka wa taala tey ñoo ngi jël 107 bi ak 108 bi ñoo ngi woon fa in usira ala annahuma waxoon nañ keroog di fàttali mbokk yi ci téere bi yàlla jox ñu muy alquranul karim zaaru aaye yu mel nii moo nuy wan ne téere bi du téere bu nuy def téere barkeelu walla téere boo xam ne dañ koy jàmb di naan wala di bind di takk waaye sunu borom jox nañu téere bi pour mu war a nekk aw dundin ci ñun aw dundin ndax aaya yi aaya yu ñuy dund la yu ñu war a wàcce ci sunu dund ndax ñun lay jëriñ aaya baa ngi doon jàngale ci mbirum ku tukki àndoon ak ay nit dem ba ci àll bi ay màndarga dee dikkal ko wóolootul boppam yaakaaratul ne dina dund ginnaaw lii ñamu àndaloon mu am ay jullit mu tànn ca ñaar ñu maandu dénk leen ay bagage am ne leen bu ngeen yeggee bu fekkee faatu na su ngeen yeggee dëkk ba ngeen yeggal bagage yi ci sama njaboot ci ñaar yooyu sax borom bi dafa dem ba jàngal ñu waajooju di waaj a faatu te fa mu nekk amul ay jullit waajooju naka la war a def tànn ay yéeféer yoo xam ne bokk ñoo ñun diine pour ñu yeggali bagage yooyu bu ñu yeggee ca mbokki ki faatu léegi nag sunu borom ne fa in usira ala annahuma ay ashahidayni suñu demee nag ba gis ñaar ñii nga xam ne dañ leen a waroon tànn dañ leen tànnoon ñu war a nekk ñoo xam ne ay témoin lañ dañoo taxaw taxaw kuy wor ñaar ñii dañoo gis ci ñoom ay màndarga yi wane ne dañoo war a wor lañu leen digaloon lañu leen dénkoon su boobaa lan mooy suñu taxawaay ñoom ñaar ñooñu lan mooy taxawaayu nit ñi ci ñaar ñooñu nga xam ne lan leen waxoon lan leen dénkoon dañ koo fas yéene wor borom bi mu ne istahaqa isman bu ñu gisee ñaar ñi seedekat yi dañoo taxaw taxaw wor bakkaar waqafa ala xiyaana minhuma dañoo taxaw ci wor fii ma uhida bihi ca lañ leen digoon ah ilayhima ci ñoom ñaar hifzuhu ñu wattu ko bagage yi ñu leen waxoon wala lañ leen dénkoon gis nañ ci ñoom ay séentoom yuy wane ne ñoom ñaar ñii ay warkat lañ léegi luy àtte bi mooy dañ leen di waatloo ñoom ñaar lu waral loolu mooy seet gi ñu gis ne am na luy wane ne ñoom ñaar ay warkat lañ mooy niñ leen ko waxee woon ci bi passé bagage ya nga xam ne moom la waaj a dénkaane woon ba mu leen ko joxee ne leen bu ngeen demee joxe leen bagage yi ñu tekki bagage yi jël ñoom lañ ca soxla woon ndeke ca biir bagage yi am na benn lettre buy tënk bagage yépp ni lii la ñoom nag gisuñu woon lettre ba ba lettre ba ba bagage yi yegsee ñoo ñu ubbi bagage yi di xool di xool ba gis lettre bi liir gis bagage yi am na lu ci manqué benn ndabal or la wala ndabal xaalis la wala mbir mu am importance la ñu laaj ci ana mbir yee ñu ne ñoom joxuñu leen ko woon léegi nag borom bi mu ne gis nañu ñoom ñaar ñi bi an wujida min al qara'in ci ndénkaane gi fekk nañ fa maa yadullu ala kasbihima luy wane ne ñaar ñii ñu dénkoon dañuy fen wa annahuma xaana ñoom ñaar wor nañ léegi fa aaxaraani ñeneen ñaar yaqumaani nañ taxaw maqaamahuma seen place ñoom ñaar ñii nañ indi nañ tànn ñeneen ñaar ci famille borom bagage yi ñaari nit ñoo xam ne ñoom liiroon nañ lettre bi wala gisoon nañ ko ñoom ñaar ñooñu nañ ñëw ñu taxaw taxawaayu ñaar ñi nga xam ne ay warkat lañ ñoom tamit ñu waat mooy aaya boobu fa aaxaraani ñaar ñeneen waaye ñaar ñii fan lañ bokk ci famille ki faatu borom bagage yaqumaani nañ taxaw maqaamahuma seen place ñoom ñaar ñi min allazina ci ñi nga xam ne istahaqa yay na alayhim ci ñoom al awlayaani ñaar ñu njëkk ña ñaar ñu mujj ñi nañ taxaw fal yaqum na taxaw rajulaani ñaar min awliya il mayit ci fami ku deeki wal yakuna ñoom ñaar ñooñu nañu nekk min aqrabi ñu jege ñuy jël ñaari mbokk ci ki faatu ñu jege ñu taxaw fa yuqsimaani billahi ñu giñ ci yàlla ñu wax ne ñoom la shahadatuna ahaqu min shahadatihima ñun li ñuy wax moo gën a dëgg ñaar ñi taxawoon fii li ñu wax ñaar ñi dénkoon bagage ndax gis nañu ne ñaar ñi kat lañ leen dénkoon am na luñ ca war loolu nag tey ci sunu dund da ngay gis ne ci ñàkk a def li lislaam wax yu ci bëri dafay feeñ ay ndénkaane yuñ dul jottali ay bor yuñ dul fay ay lu tax parce que li lislaam wax nit ñi barki démb ba samedi am na ku laaj ne su fekkoon ne waa ji dama ko wóolu ba yaakaar ne moom déedéet yàlla ba muy wax lii di ko wàcce ci ñan la ko doon wàcce ban génération saxaaba yi ñoo ñooñu gën su fekkee ñooñu la ñu gis ne ci seen biir am na ñoo xam ne dañoo jalgati léegi nag ñun kon ak génération bi nga xam ne adduna bi nga xam ne daanaka ragal yàlla jeex na kon li muy tekki mooy ala yaalamu man xalaq wa huwa latifu xabir yàlla moo xam yàlla bu tracé ne nii la amatul ñuy xool ay yërmandeeg ay lii lii la lii lii la wala lii lii la déedéet waaw bu kenn xoolati loolu bu kenn xoolati loolu yàllaa ñu ëpp yërmande yàlla moo ñu gën a xam nit ñi lu ñuy xam xam xam xam yàlla moo ñu gën a xam suñu bopp comme moom yàlla bu ñu rëddalee suñu texe àdduna ak suñu texe àllaaxira mu ngi ci fan ñu jaar ci loolu nga xam ne moom la ñu yàlla rëddal mu ne nañ indi ñeneen ñaar ñoo xam ne ci ñu jege ku faatu ki lañ ñoom it annahuma ñoom ñaar ñu seede ne ñaar ñi fi taxawoon sànq kadiba dañuy fen ndax am na lu ñu nëbb wa xayyara changé nañ lañ leen dénkoon wa xaanaa war nañ ñi mujj ñi buñ ñëwee ñoom la ñuy seede mooy ñun wóor nañu ne ñaar ñi taxawoon fii dañuy fen bagage yi am na luñ ci jël wala am na lu ñu indiwul léeg-léeg nga yóbbante xaalis ak ay yére ñi yóbbu yére yi bàyyi xaalis bi léeg-léeg nga yóbbante yére ak ay dàll waa ji xool dàll yi dafa rafet mu ne xaaral ma jël dàll yi surtout nag jamono bi nga xam ne ay portable ak ay montre ak ay mbir yoo xam ne ah yu sophistiqué la da ngay gis nga yóbbante ki nga yóbbante daa am lu mu ci rocc daan ne ah ah bon gis nga comme ni ma leen ko waxoon bi passé ordinateur bu ñu ma yóbbante woon waa ji na daa réer aéroport euh, Canada ba pare ci biir wax mu ne am naa beneen bàyyi ma jox la ko yow kenn fayeeku la nga ne am naa beneen mooy ça veut dire que ne am na lu ciy ñuul waaw mu ngoog kon ci islam kooku tey dañ ko waroon taxaw waat loo ko mu waat ci yàlla waat ci boroomam ak borom bagage yi am borom bagage yi moom deewul sax moom mu ngi dund mu ngoog sunu borom subhanahu wa taala mu ne wa matadayna inna idan la min alzalimin ñaar ñooñu mujjee ñëw nga xam ne dañoo taxaw di waat ñoom la ñuy wax mooy ñun ñaar nii maa zalam na ñun tooñuñu jalgatiwuñu tuumaaluñ leen yéen ñaar mooy wa matadayna ñun jalgatiwuñu tuumaaluñ leen rek jël mbir yi teg ko seen kaw waaye daf ñoo leer ne li ñuy wax ni ñun ñi moom moo gën a dëggu yéen li ngeen di wax ndax bu ñu defee loolu inna isan la min azalimin kon ñun ay tooñkat la ñuy doon wa sahadatuna sunu seede bii ñu seede ñun moom la ñu gën a wóor ne moom mooy dëgg ci seen seede yéen ndax yéen li ngeen dox du dëgg gis ngeen yoon yi ñu yàlla rëddalal pour chaque jour jamono bu nu nekk sunu dund mën a tegu ci raay bi ñu mën a tegu ci dëgg sunu borom subhanahu wa taala ci leeral gi muy leeral xikma gi nekk ci tilka shahada seede yooyu ñu war a seede wa taakidiha ak dëgëral gi mu koy dëgëral wa raddiha delloo gi mu ko delloo ala awliya il mayit ci fami ki déegi au lieu ñu ne ñeneen nañ ñëw seede waaye fal nañu tànn témoin yi mooy ci fami ki faatu kañ lañuy tànn ci fami ki faatu ñu ñëw seede mooy hiina tuzhir min ash-shahidayni alxiyaana saa yi ñu demee ba gis ne ñaar ñi ñu wóolu woon kat war nañ ñaar ñu njëkk ña war nañ léegi dañuy indi ñaari famille ci ki faatu ki ñu gën a jege yàlla mu ne zalika adna ay aqrab loolu moo gën a jege an yaatu bi shahada ala wajhiha ñooñu indi seede yi moo gën a jege ca nañ ko feddalee nañ ko dëgëralee ndax ñooñu buñ ñëwee la ñuy wax mooy ñoom la ñu gis ba pare ñoom ñooy ay mbokk waa ji faatu ñoom ñoo bokk ak moom deret ñoom ñooy boromi bagage yi kon ñooñu seeni seede mooy gën a dëggu ak ñeneen ñoo nga xam ne dañ leen di tànn mu ne hikma boobu moo tax yàlla subhanahu wa taala ne nañu jël ñaar ñi nga xam ne ñoo bokk ak ku faatu ki mu ne hina tuakkidu alayhima tilka taakid jamono boobu nga xam ne danañu feddali ci ñoom feddali gi lu ci tegu mooy aw ya xaafu wala ñu ragal an turadda aymaanun baada aymaanihim wala ñu ragal allah tuqbalu aymaanahum wala ñoom ñu ragal ne suñu giñee kenn du ko nangu al aymaan mooy jamu yamin yamin mooy ngiñ ngiñ mooy waat waat nag ci yàlla rek lañ koy def kenn du ko waat kenn du ko def ci kenn ku dul yàlla jullit bu jëlee décision bay waat na yëg ne ci yàlla rek la war a waat waaw lu mel ne billaahi wala wallahi wala tallaahi wala wa rabbil kaaba yu demee noonu wala comme ni ko yonent bi doon defee naan wallazi nafsu muhammadin bi yadihi yooyu ñooy waat amma yeneen yi ñuy wax fi yëpp yenn yi bokkaale la yenn yi bidaa la yenent bi nee na man kaana xaalifan falyaxlif billah aw li yasmut kuy giñ ne giñ ci yàlla te noppi yenent bi wax na ne man xalafa bi gayrillahi faqad ashraka wa fi riwaya faqad ashraka wa kafara yenent bi nee na képp ku giñ ci ku dul yàlla bokkaale nga beneen riwaaya bi mu ne bokkaale nga weddi nga yàlla suñu jàngee fiq danañ gis am ñu ñu tuddee al abadala al abadala ñeent lañ ñu mooy jamu abd abdullah abdullah abdullah ibnu abbas abdullah ibnu masud abdullah ibnu amr abdullah ibnu omar ñeenti ñi ñooñ la ñuy wax al abadala comme ni ñuy waxee ñoom imam malik al aimma al arbaa ñeenti njiit yi waaw ñooñu mooy borom ngir yi noonu la ñuy waxee ñi al abadala ñoom tamit ñeent lañ ñoom ñeent ñu ne nga giñ ci yàlla nga fen moo gën nga giñ ci nit nga wax dëgg ñu ne leen li ngeen wax garaaw na trop ndax ki giñ ci yàlla fen fen baaxul ñu ne waaw boo giñee ci yàlla nga fen yàlla dafay baale fen waaye boo giñee ci nit nga wax dëgg danga bokkaale te yàlla du baale bokkaale inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi waaye wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha gis nga soo giñee ci yàlla nga wax dëgg da ngaa bokkaale te yàlla du baale bokkaale fen nag ak leneen ak lu dul loolu yàlla mun na ko baale waaye bokkaale yàlla du ko baal mukk ko deewaale moo tax borom bi tabaraka wa taala mu ne aw yaxaafa bu ñu ragalee ñaar ñii laa tuqbalu aymaanahum suñu giñee kenn du ko nangu summa turaddu ala awliyaa il mayit dañ koy delloo ci famille ki dee ah ndax boobu moom moo gën a wóor sunu borom ne wallahu yàlla laa yahdi du jubal alqawma nit alfasiqina yoo xam ne ay kàccoor lañ allazina wasafathum alfisq fala yarud fala yarudduuna alhuda walqasd ila siratin mustaqim ñi yàlla ne ñi ay kàccoor lañ kenn mënta fexe bañ jub waaye kenn mënta fexe jàpp seen loxo ba jaaral leen ci siraatal mustaqim loolu tax chaque jour ñuy wax ne bu ñu jàngee aaya ba muy jeex nañu bàyyi xel aaya fu muy jeexee sunu borom ne wallahu la yahdi al qawma al fasiqin man yàlla duma jubal mukk ay nit ñoo xam ne ay kàccoor lañ lan mooy baatu faasiq mooy ku génnuk topp waa ji nga xam ne li ko yàlla rëddal ne ko jaaral nii siraatal mustaqim waa ji dafa lànk bañ faa jaar kooku kàccoor la sunu borom nag nee na kàccoor bi moom du ko jubal mukk kàccoor kenn mënta fexe mu baax ndax yàlla nee na du baax li gën a doy waar mooy yàlla nee na du tegu mukk ci siraatal mustaqim kon ku nekk ci ñun war nga bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax mbir yi nga xam ne dafay yóbbu nit ci mu nekk alfasiq sun borom wax na ci suratu baqara ba muy lim mandarga naafiq yi dafa boole naafiq yi ci kàccoor yi naafiq yi yàllaa ngi leen boole ci kàccoor yi moo tax ñu war a mooy tëndiku mbir yoo xam ne daf lay yóbbu ci naafiq parce que boo jógee boo fi jógee da ngay takk beneen garaat ci fasiq nga jëm mu ne waxaasilu anna waxaasilu haada anna al insaan liñ doon tënk mooy doomu aadama isa xadarahul mawt bu ko dee dikkalee fi safar wa nahwihi ci tukki ak lu demee noonu loo xam ne foofu mu nekk amul ay jullit li war ci moom bu fekkee am nay jullit fa mu nekk li war ci moom mooy yambari an yu yuusiya shahidayni muslimayni aadilayni su fekkee da ngaa nekk foo xam ne ay jullit a nga fa yaa ngi waaj a faatu na nga dénkaane da nga tànn ñaari témoin yoo xam ne ay jullit lañ ba pare maandu loolu lañ la njëkk a tànnloo fa in lam yajid illa shahidayni kaafirayni su fekkee amoo fa nga nekk amul jullit ay yéeféer fa nekk nga ut ñaari yéeféer dana dagan ci yow nga dénk leen looloo tax borom bi ne ñaar ñooñu dañ leen di waatloo parce que duñu ay jullit amma ñaari jullit yu maandu yu wóor ñaar ñooñu jarul waatloo parce que am na critères yu ñu leen tànnee maadaama ñaar ñeen ak ñoom ay yéeféer lañ wala ñu seet ci ñoom ne gis nañ ci ñoom ay mandarga yoo ne dañuy war borom bi ne kon ñaar ñi foog ñu waarloo leen li ajli kufrihima fa inna awliya inertaabu bu fekkee ñiy sikki sàkka nañ bihima ci ñoom ñaar fa innahuma yaxlifa yaxlifunahuma ñoom ñaar ñi dañ leen di waat loo kon min baadi sala ginnaaw julli foofu nag borom xam-xam yi li ñu tànn mooy ginnaaw julli takkusaan ñu wax ne ñoom ñaar annahuma ma xaana ñun ñaar waruñu wala kaziba fenuñu wala gayara changé wuñu wala baddala soppi wuñu fa yutabar anna bi zalika min xaqin yatawajjahu ilayhima ñu jàpp ne kon ñoom ñaar ñii lii ñu def comme waat nañ ba wax lii ñu wax ñoom waruñu fenuñu changé wuñu soppi wuñu kon dëgg-dëgg war nañ leen a wóolu bu fekkee nag fa in lam yusaddiquhuma bu fekkee dëggaluñu leen wax nañ li ba pare gaa yi ne déedéet lu tax ndax fekk nañ luy wane ne ñaar ñii dañuy fen mooy comme zaaru lettre boobu ma la doon wax wala waaru zaaru message boobu xam nga léegi li tax kenn yu mel noonu mën a wàññeeku mooy léegi léegi waa ji daf lay wax ne envoyé naa la benn colis wala téléphone ne la nangam ak nangam ak nangam a ci nekk loolu yomb na mu envoyé la ko message wala yenn saa yi sax mu bind ko envoyé la message lépp li ci nekk moo tax bu ñu ñëwee bu ñu ko tegee dañuy fekk bagage yi normal wala nga ni waa ji ah waa ji de waxoon na nangam ak nangam ak nangam te lii gisuñu ko mu ngi nii message baa ngi nii gis nga rapidement ci ay ñaari minutes yooyu ñu lijjanti ko bu njëkk ba nag jumtukaay yii ñu am léegi ak information yi ak àdduna bi ni mu nekkee benn dëkk amul woon moo tax yàlla subhanahu wa taala santoon ñu ñu ay seede ci ay jullit ba pare mu jox ñu ay critères ci jullit ñi waaye mu ne sax bu demee ba amul jullit dañu tànn yéeféer pour lan lu yàlla bañ lan la yàlla bañ foofu lu lëndëm na yëpp leer moo tax diine ji su ko nit ñi comprendre rek nit ñi danañ dund àjjana ci kaw suuf du nekk tey comme nii nga xam ne sa waay kenn xamul nit ñi li ñuy dund ku gis lii tey di ngay xalaat ne ñi ay jullit lañ démb benn jigéen mu ngi may wax ne yéen fi ngeen dëkk bi wiiri wiiri jeexee yuuxu nañ ma ne ko man dama koo tal dégg naa xaw ma barki di xaw ma démb nit ñi dañ doon yuuxu di zibilé sa koñ yuuxu nañ waaw kii nee na koñam yuuxu nañ yéen nag yuuxu nañ seeni koñ ñëpp yuuxu nañ gis nga lu ñu yuuxu lan la ñu kontaan bay yuuxu lan la ñu gis xool ay théâtre ñu leen di nax ñu leen di nax di yàq seeni waxtu toog allahu akbar li ma gën a métti ci Sénégal mooy waxtu yi ñuy def yooyu xale yi dañuy xëy suba di jàngi wala comme nii xale yi dañuy xëy suba di jàngi ñu tegal leen loo xam ne xale yi dañ koy seetaan duñ jàng seen leçon léegi fu ñu jëm ñoom ñu indi programme yi ñoom seen doom yi xamuñu ñooy ne ñoom seen doom yi ñu ngi jàng ñu ngi ci université yi ci Europe adduna bi xamuñu yi ñi ngi États-Unis ñi ngi France ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñun suñu doom yi ñu ngi fii di leen nelaw loo quoi duñ jàng mukk suba bu ñu xëyee wala ñu jàng ci wiiri wiiri la ñuy nekk démb non Sénégal il faut ñu yeewu dafa am système yoo xam ne tubaab yi dañ koo tëral pour nit ñi duñu yeew mooy système yi ñuy nelawloo peuple nañu nelaw wala bu ñu nekk conscience mooy comme gaaru nawetaan yi lii xoolal ñu ngi ci digg année scolaire nit ñaa ngi jàng ñi ñiy football bu heure yi léegi imaginez jour yi ci nekk ay jàngkat wala ay liggéeykat ni ñuy liggéeyee ni ñuy jàngee lii lii nit dina ci nekk ba ngoon dem di lii sa leçon dama leen laaj surtout nag bu ñu la gañee bu ñu la gañee doo liir bu ñu la bu ñu boo gañee doo liir sa leçon doo jàng sa leçon ba pare bu ñuy ñibbi lu ñu fekk ci yoon bi dañ koy jël dañuy agressé di gaañ di jël di sàcc non mais lii amul benn njëriñ kon bu ñuy jàng ay yi mel nii daf ñuy wan ne alxuraan islaam aw dundin la manhajun lil haya système de vie la lii la ñuy wax ne yàlla bàyyi lu nu dara ñun ñooy def effort xam li yàlla wax alhamdulilah wala ñu daal di alku nekk ci biir sunu borom jalla jalaaluhu bàyyi lu ñu lenn ci diine moo xam ñun la ñoo def yitte wala defuñu yitte waaye diine ji liñ ci yàlla wax rek moo ci nekk dara bàyyi wuñ ko mu ne wa hasilul aaya nazalat wa hasil aaya nazalat aaya bi dafa wàcc ci niñ leen waxoon bi passé fi qissa tamimu daar wa adi ibnu badda ñaar ñi ci ñoom la aaya bi wàcc waxoon nañ leen xissa bi bee passé du jar baamtuwaat léegi nag mbokk jullit yi ana yan bind ak yan àtte la ñu war a génne ci ñetti aaya yi loolu kenn ku nekk ci ñun war na wax ci xelam waaw lan moo tax suñu borom génneel ñu lii mu ne aaya bi ëmb na ay atte yu bari bi ci njëkk al wasiyatu masru dañoo yoonal ndénkaane dañ ko yoonal mu ne wa annahu yambagi liman xadarahu al mawt an yusiya képp koo xam ne yaa ngi ñëw yaa ngi ci lalub dee feebar bi nga feebar wala lii dal la wala fii nga nekk xam nga ne doo ci génn xam nga ne da ngay faatu lu la war mooy minute yi nga dese waxtu yi nga dese balaa ngay faatu nga leeral sa ginnaaw mooy nga ndénkaane loolu mooy bu njëkk ñaareel wa annaha mu'tabara walaw kaana al insaan wasala ila muqaddimati almawti wa alamatihi maadaama aqluhu thabita soo demoon sax bay waaj a sukuraat nga xam ne dese nga ay minute yu ndaw ndawaan yoo xam ne yaa ngeeg sa xel bul bàyyi dara jàll leeralal sa ginnaaw même boo yeggoon ci di xor-xori mais yaa ngeeg sa xel mën nga wax même baat bi bu mënta jóg ñi ngay waxal mën nañoo dégg maanaam mooy leeralal li nga bàyyi tey nga defe ne nit ñi buñ doon def noonu am na ñoo xam ne perte nañ alal yu baree bari parce que faatu nañ am naa am nañ benn mbokk sunit militaire la woon mi ngi woon benn camp ci camp wu Dakar yi dafa jaay këram kër Mbay Fall ne dafa bëgg terrain bu gën a rëy mu jaay terrain kër Mbay Fall daf ko jaay lu tolloog fukki fan seen dëkk ci Fuuta am benn programme bu fa am mu dem bi mu demee samedi la woon wala vendredi la woon léegi moom lundi daf ko war a fekk ci camp bi bi mu demee ci dëkk ba comme programme bi jeex na jouru dimanche bi ci ngoon mu tiit parce que xam na ne dafa war a heure da ko war a fekk Dakar huit heures pir pir pir moom moo war a monter léegi nag gaal gi ko war a jëli traversé ko dex bi gaal amul ñu wëral ko gaal ba sonn gaal amul mu daal di simmeeku jël ay yërëm takk ko sàkk de ne day feej day day feej dex gi bi mu duggee ci dex gi daal di lab dee ci ay minutes yu ndaw ñu téléphoné armée bi ñu naaw ak hélico ñëw génne ko fekk deen xam nga lan moo garaaw waajoo yu ba léegi terrain boobu mu jaayoon xamuñu xaalis bi fu mu nekk gisuñu kayit banque bu mu ko dugal amoon na ñaari jabar laaj nañ leen gisuñu ko laaj nañ xaritam yi gas nañu néeg yi waxi nañ xool nañ ba sonn gisuñu xaalis bi te ay million la kenn gis ko ba fii mu toog noonu la xaalis boobu réeree loolu nga defe ne tey doomu aadama war na yor yenn alal yooyu dugaloo ko banque waxoo ko sa jabar waxoo ko sa papa waxoo ko sa yaay amoo kenn koo diisool ah amoo kenn koo wax ne nangam maa ngi ko def fenn place sàngam wala loolu léegi nu mu perte te pourtant boo doon xool mën na am am naa amaana ku mu ko dénk ci soxnaam yi ah mais du feeñ fekkee kooku ragal yàlla du feeñ mën naa mu dénk ko ci kenn ci xarit mais bu ko dénkoon banque moom dinañ ko fekk ci kayit yi wala ñu fekk ko quelque part mais mal asaf yu mel noonu loolu la lislaam di bañ ak yeneen ak yeneen yu gën a doy waar yooyu mu ngi ci biir dëkk bi ah oustaz bu mu boolee rek moom benn xisa boo xam ne ci lu mel ci lu mel noonu noonu waaw la waa ji dafa nekk France mu ngoog nekk fa ak aawam ñaareel nekk fii Sénégal mhm.
léegi comme day jënd ay terrain waaw waaw nga déclaré ko ci turu koo xam ne moo fi nekk mooy gën a yomb waaw surtout ci wàllu ay papier yu mel noonu mhm.
léegi waaw premier kër bi mu jëndoon daf ko defoon ci turu turu aawam trois bi waaw après mu dem ba jëmmi jamono comme ñaareel moo fi nekk mhm.
bu jëndaat yeneen kër mais ñaareel mu def ko ci turu ñaareel Mhm.
pour pour loo xam ne day yombal waaw yombal mbir mi amoon tamit ay compte yu mu tijji ngir yombal tax mu jox ko maanaam mu def ña- ñaareel bi turu ñaareel waaw xam nga xam ne kooku léeg-léeg moo yor moo yor tamit kayit yàlla def mu génn àdduna waaw
ñu ne léegi dañuy maanaam dañuy miraas waaw dañuy miraas miraas charia ñaareel bañ ne moom ay kayit lay lay miraas waaw ndaxte moo yor lépp waaw ñu dem léegi day jël alal ji lépp lay jël.
gis nga dégg ngeen lu xista bi mu wax lan moo indi loolu mooy ñaareel bi ragalul yàlla te balaa muy dee dina torox alalu àdduna yi ku mu jaral nga wor olof yi nee nañ boo woree ren ba déwén feeñul ci yow dañ la ko tuumaal te dëgg bu leer la koo fi gis mu foqale di lekk alalu jàmbur wala muy tappale wala muy trian wallahi bala muy dee day mboow ne xaj parce que wor baaxul yàlla moo ko wax alquran la inna allaha la yahdi kaydal xaa'iniin loolu aaya la yàlla nee na warkat du ma jubal ay pexe mukk première guddi yi dana neex waaye buy mujj dana dana mébétoon tey jii waa ji taxaw ma baalu ko àq ndax yàlla moo ne say mbir du ma ko baaxal ma inna allaha la yahdi kaydal xaa'iniin ñetteel mooy ann shahaada alwasiya la budda fiha min isnayni aadilayni ñaar ñuñ la tànn loo ñu seede mooy bàyyil xel yow mii ñaar ñuñ la tànn loo aadilayni lañ wax ñu maan gis nga léegi nag boo amee par exemple jabar ju ragalul yàlla mooy li ma la waxoon samedi passé da ngay gis góor gu génn àdduna maire bi taxaw daal ne moom de bi ñuy jënd terrain bi joxe naa ci sama 2 millions foo ko jëlee ne bi ñu tabax kër gi joxe naa ci sama 500 mille yooyu la ñu maye léegi yooyu la ñu dugal pour ñu dindi ko ci jox la nga am nga ah, am naa ci dara de ñaaw waaye fa ne dinaa fi nekk ni jiitu fi ba pare te du ma ci am ah mais yow yàlla moo rëdd miraas yàllaa ko rëdd yàlla moo ne nii la même bu doon fistine la jëlal fistine boobu yàlla rëddal la yàlla def ci barke waaye ngay wor di tappale di trian def naa lii def naa lii nañu miraas ci islam nga ne duñu miraas ci islam ci ay këyit laay miraas parce que xam nga ne këyit yi sa tura ci nekk suñ demee dañ naan ah turu ku góor ki nekku ci turu ku jigéen kay ci nekk kon ki ki mu nekk ci turam moom moo moom te yow mi mu nekk ci tur xam nga ne moo moo loolu nag leçon la pour ñun ñëpp jabar ak doom ak baay ak maam ak yépp ci yem gis nga li indil waa jooju problème mooy sentiment sama jabar la sama jabar moom sama jabar la du ma war la ilaha illallah ñoo ñoo gën a bon sama jëkkër la sama jëkkër du ma war ñun ñoo gën a yées parce que am na ñoo xam ne bu alal taxawee xoolatuñu yàlla xooluñu kenn waaw xoolatuñu yàlla waaye xam nga ne sa jëkkër jënd dara ne la def ci sa tur ndax mu yomb waaye xam nga ne maa ko moom sa jëkkër dee ñu ne bismillah nga ne man ay këyit laay def ay këyit parce que xam nga ne këyit yi sa tur a ci nekk bu ñu demee ci yoon yow la ñuy jox ndax yoon moom yoon li ñu naan yoon fi yoon du yoonu lislaam yoonu yahud la mu demee dañuy jël yëpp jox la de parce que ñu ne yaa ko moom parce que sa tur moo ci nekk sa tur a ci nekk te te yow jëndoo jëndoo amoo xam nga ne ndaw soosu nekk fii di sëy mënta am ay terrain ak ay compte fu muy liggéey waaye ñii loolu moo lay wan ne yoon yi ñuy wax yoon du dara du tus banditisme la boo xam ne moo ñu teree dund diine tey li tax nit ñi mënuñoo nekk ay julit mooy charia bi lañ bafuyee sànni ko fële ci mbali ku nekk la neex ngay def ñeenteel anna shahadatu lkafir fi hadihi lwasiya wa nahwiha maqbula yéeféer lu muy nekk yéeféer yéeféer ak kàccor saay-saay fii dañuy nangu seedeem ndax li wujudi darar na dañoo am lor waajaa ngi faatu amul ku mu dénk ñaari yéeféer la dëkkal wala ay yéeféer la nekkal mu woo leen def leen def ci ñoom dénkaane wa hada mazhabu imam ahmad ngir googu ñu naan ngirum imam ahmad moom loolu la nangu loolu aussi mooy lu bare bari ci ahlul ilmi lu ñu nangu ñu ne atte bi kenn man suuxalu ko ba léegi ñu ngi koy atte woo juróomeel wa annahu rubama استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكافر عند عدم خيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله seede ku dul ku dul jullit ci masala yu mel nii dañ ko nangu lu tax ndax lor moo fi nekk même bu dul ci seede bi rek feneen foo xamante ne soxla nañ fa témoin te témoin yi amuñu ay jullit nu ñuy def dañuy tànn ay yéefar seedole leen nee na loolu ibnu taymiya bind na ci te côté boobu la màcce wàll boobu daan ne loolu mën na nekk juróom-benneel jawaazu safarul muslim ma al kafir ida lam yakun mahzur tukki jullit di tukki ànd ak yéefar loolu nangu nañ ko bu fekkente ne amul benn lor bu ci am da ngay tukki nga ànd ak yéeféer nangu nañ ko fekkee day am lor nag bul dem su fekkee lor nekku ci am na jàmm am na kóolute islaam daganal na julli di tukki ànd ak yéeféer fekkee amul ngànt juróom-ñaareel jawaazu safar li tijaara dagan na ab julli tukki pour commerce ndax waa ji faatu woon ab commerçant la danaan dox diggante dëkk di jënd ay bagage di ñëw di faatu nag daal di dénkaane bagage yi juróom-ñetteel أن شاهدين إذ ارتيب فيهما ولم تبدو قرين تدل على خيانتهما وأراد أولياء أن يؤكدوا عليهما اليمين يحبسونهما بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكره الله ñi nga xam ne ñoo moom alal ji suñu demee ba am sipsion sikki sàkk ne ñaar ñii ñu yónnee woon colis bi wala bagage yi wala nangam yi ñaar ñi am na luñ ci def islaam nee na nañ leen taxawloo ñoom ñaar ginnaaw julli tàkkusaan ñu waatloo leen ñoom ñaar juróom ñeenteel wa annahu ida lam taxsul tuhma wala riba lam yakun xaaja ila xasbihima ila xabsihima wa taakidi alyamin alayhima ñoom ñaar nag bu fekkee ne kenn sipsone wu leen kenn tuumaalu leen amul lu ñuy sipsone ci ñoom ñaar kon du am benn solo ñu leen di taxawloo ñoom ñaar di leen waatloo fekkee sipsone wuñ leen fukkeel taasimu amru shahada yàlla dafa réyal mbirum seede seede yàlla daf ko réyal xaysu adafaha taala ila nafsihi yàlla dafa jël seede askanele ko bokkam boppam ci biir aaya yi gis ngeen yàlla mu ne wala taktumu shahadatullah bu leen jël seede yàlla di ko nëbb kon yàlla moom moom seede kii seede nag da ngay seede li nga xam wa ma shahidna illa bi ma alim na kon yàlla dafa màggal seede jël seede taf ko ci boppam wa annahu yajibu al itinau biha wal qiyaamu biha bil qist suñ koy def nañ ci taxaw waaye nañ ko def ci maandute kii seede na seede li mu xam na seede li mu fekkee fexeel ba booy seede fekkeel fekkeel seedeel li nga xam juróom fukkeel ak benn wa annahu yajuuzu imtihaan ashahidayni léeg-léeg mun nañoo nattu mun nañoo nattu ñaar ñi nga xam ne ñoom ñoo doon seede ñu nattu leen kañ bu ñu amee sipsion ci ñoom ak sikki sàkk pour ñu xool dëgg-dëgg ñoom ñaar ñi ndax dëggu nañ wala dëgguwuñ ñu nattu leen fukkeel ak benn ak ñaar annahu iza wujida al qara'in addalla ala al kasb للوصيتين للوصيين في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت فأقسما بالله suñ demee nag ba am sipsion ndax gis nañ benn lettre wala gis nañ benn message wala gis nañ benn nangam buy wane ne ñaar ñi dañuy fen dañuy tànn ci ñaari mbokk waa ji faatu ñu ko jege ñu daal di taxawal ngiñ gi nag ñu daal di waat waxoon nañ sababu nuzuul aaya bi waxoon nañ fawaid yu nekk ci aaya bi bu ci njëkk mooy at ataxawuf min allahi taala wa ashidu zaway adlin minkum chaque jour bu ñuy seedeloo li ñu yàlla wax mooy nañ xool ku maandu zaway adlin minkum chaque jour ku maandu la ñu war a def loo seede ku maandu même bu ñuy dénk ñu dénk ku maandu waaw ku ragal yàlla bëgg nañ aussi waat gi ñuy waatloo ñaar ñooñu istihbab alxalf baada salaa taxliisan fi saanil yamin ginnaaw julli waa ji génn ci jàkka ji rek wala ci biir jàkka ji sax ñu taxaw lool ko daal koy waat loolu bëgg nañ ko borom téere bi nee na haadihi salaasa al ayat ñetti aaya yi nekk min surati al maida asabu ma fi l quran iraban wa nazman wa hukman yéen ñi jàng arab borom téere bi nee na ñetti aaya yi ñoo gën a difficile ci téere yàlla bi lu ñuy irab waaye yemu ci irab rek wa nazman wa hukman nee na atte bi moo gën a ñàng moo gën a tar ci atte téere yàlla bi ñetti aaya yi ndax li ci nekk kon mbokk yi ci tënk lii moo doon dars bi ñu doon yeggali samedi lañ ko tàmbali woon waaye keroog lii ñu wax nii yëpp dafa desoon mënuñu ko woon yeggali moo tax ñu yeggali ko tey incha allah bismillahi tabaraka wa taala di jéggalu sunu borom njuumte yi yal na yàlla sàmm ba samedi di ñëw incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu su fekkee am na ay laaj incha allah